lan man je si un sénégalais. Youssou Ndour di sénégalais di le roi du mbalax Wally Seck di le golden boy de la musique sénégalaise. ñu invité ma Bercy officiellement lañ ma invité. kan moo la invité dañ ma invité. ñoom waa groupe Futur Média ñoom ma invité Bercy dag laal ma euh, laal ma badge accrédité ma xam ku ñu invité mën la jox accréditation. sama passeport laa leen envoyé ba ma nekkee ci avion bi man ba may départ sama kër laa defar sama bagage ne leen direction Bercy boobu génnaguma Sénégal demaguma euh, aéroport jëlaguma Air Sénégal. waaw wax nga boobu non loolu may wax ak Waly suma xarit la dégg nga man la suma xarit la. du yooyu noonu am ngeen ci entente sa xarit balaa ngay woon wala am ci benn sikki sàkk ne Waly loolu du ko neex ma dem Bercy. Hmm. nit ñi nag supporter yi la ak waa team découverte rek mais amul problème Waly amul problème boobu. du yooyu noonu. Hmm. mais Youssou Ndour bu defee Bercy loolu c'est un Sénégalais bu xewle Bercy Padros da ci war a dem yow dañ ci war a dem cameraman da ci war a dem kenn da ci war a la mooy le problème. Hmm. loolu yàqu sama relation ak Waly balaa ko sekk. d'accord léegi dinañ ñëwaatal dafa am ñaar loo xam ne dafa am dafa am loo xam personnage la am personne am personnalité. dafa am loo xam ne Faramareen musique loolu mooy écuyer bu Wally Seck soxlaa képp soxla day ñàkk am loo xam ne dafa support de ñaaxarañ loolu léeg saa nga soxla ñaabe da ngay soxla support de ñaaxarañ loo te man dafa am ñoo xam ne dañ may seetaan ñooñu a jox liñ am ñoo xam ne ñoo bëgg Youssou Ndour am ñoo xam dañoo ñoo bëgg leneen lamb moo gën a fiite Modou Lo suma xarit la moom mooy moom te damay

lay wax rek bari xaftaan taxul nga dem ngénte bu ñu la man xam ni du ma business laay voyagé mm. te xam nag bëgg dem business class laay voyagé du ma voyagé bëgg dem business class billet bi ñaata lay jar Amérique un million non non pas état France tur man structure laay tudd ñoom ñoo ma daggal billet ñoo ma logé. d'accord léegi ni may yoon yow dimanche dimanche euh, ma def ma nuyu de passage suma xarit suma sëriñ ñu naan ko Rijal Mbacke doomu Cheikh Modou Kara moom wutal contrat nii Dubaï. dimanche bi di ñëw dimanche bi di ñëw damay dem Dubaï incha allah rabi 18h ci kii bi Emirates euh, bi. Mhm. waa Dubaï ay naar yoo xam ne dañu am ay partenaires naar yu ma yu ma Rijal wutal foofu euh, contrat. dañuy jaay ay appartement dagal dañ ma billet fayal ma hôtel fay ma cachet man la soxlaw ma cachet pourcentage laay liggéey ak yéen appartement bu ñu jaay ma am ci pourcentage moo ma gën a ngeen may fay cachet dimanche laay dem retour jeudi incha allah wala ci kàttan suñu borom moo fa jógee yeggal liggéey Wally Seck le 6 ñu ngi euh, ñu ngi Casablanca le ñu ngi euh, Barcelone le 13 ñu ngi Almeria très bien léegi revenir en temps balaa tuuti di ñëw revenir mm-hmm. encore nga mm-hmm. expliquer sénégalais yi mm-hmm. man amul lu muy expliquer sénégalais yi non non amul lu muy expliquer ma la tuutu da nga bëgg ñoom may gis na ñi la bëgg dañ lay bëgg ba yomal xiyaam defal nànk rek ma kenn di mer soxla ma kenn ma tontu jooy oh, ma xaaral rek ma problème amul problème yéen nit ñi ñoo jàppale mais problème amu ci. man awma problème man jóge naa fi départ fii jeudi yegg fa vendredi matin laa yegg vendredi fajar laa yegg Paris dem ñu génne ma ci journal télévision wu TFM journal français mën a Ketchup. gis naa la waaw xam ku duñ la génne ci JT wu 20 version français version wolof. Mhm. ba ma yegg ñoom ci boobu kilifa ya ma woon nañ ma ne ma lu envoyé ma sa passeport pour que passeport ñu defal la ku ñu invité wu ñu defal accréditation. nañu arrêté. man ma fii pour xaaral rek su si Youssou di soo sa TFM di ko wane. ci sama sanab lañ koy gisee. Mhm. man ñëw ma pour expliquer wala pour leeral. Mhm. Sénégalais doo leen tàmbalee boo leen tàmbalee leeral dañ la wax leen loo xam ne boo ko leeralul. non non ku ni fang na faaw nga leeral leen. parce que xaaral yaa leen tàmbal am ñu la bëgg gis nga bi nga amee vidéo yi gars yi dañ koy partagé. partagé ñi bëgg dañ may bëgg ba pencum yàlla. ñaar da nga dugg si police déglu ma déglu ma noonu la noonu may déglu yow. yow dañ bëgg. ña la bëgg ba pencum yàlla dañ lay bëgg. ñala la bañ mën ñu laa sopp nañu wax dëgg man ñëw ma pour leeral wala pour lënd ma dama ñëw pour nga ne ma dama ma lan laa ko bu ma ñëwee ñaaka lañ loolu na nga def ba jege président de la république wala ñaaka lañ na nga def dafa nànk rek loolu dinañ ko wax sax loolu ñaaka lañ loolu na nga def ba fula wër na nga def ba ba ba créé tey benn am benn entreprise naan Snapchat ba booy di jël seen téléphone léegi di ci réussir mais pas ay invité nañ la basique invité wuñ la basique man dépassé naa foofu maa ngi ci yeneen levé la yeneen temps léegi benn xool léegi hmm. léegi li mu wax ni c'est très important hmm? mais xam nga dafa am loo xamante ni bu demee ba jur polémique polémique amul amul polémique de. polémique amul mais léegi foofu laa lay expliqué polémique waaye léegi xam nga toogal suñu bopp. au lieu de tourner la page man je change de livre. man dama changer livre man dama tourner la page. waaw da ngay changer livre léegi ci loolu. xam nga toog jékki-jékki toog. Mm. Mhm. Mm-hmm. gis boucher ketchup di def mm. ay vidéo naan mm-hmm. ñun man de dañ maa. loolu nag te waxaara rek xaaral te moom boucher. waaw ngeen posé question non. xam loolu. suba nañ invité Boucher ginnaaw bu ngeen ko wooyee dañ naan ko nekk nañ la invité defoon naa nga def noonu ñëpp xaj nañ fi man rek man gisoo may def ci may def ITB télé dañ may topp deux ans du ma dem émission télé kii suma xarit la démb la may woo ma ñëw. xaaral rek moom la site internet yi xaaral rek moom la site internet yi du actionné site internet dañu may toog ay two years ne ma émission ma ne leen def ma ITV ndax la ñuy def maa leen ko daal lañu li may suivre suivre luñu leen mm. boo leen doolee ay cinq sites man li may suivre suivre luñu leen mm. kon ma su ma naree wax fii laay waxee man dama am waxukaay dama am support de communication mais ñëw ma pour leer dama ñëw pour ñu saafonte mm. pour ñu xool ñu projet yi naka lay avancé très bien nan la ñuy def ko booy yi ah. jóge ci point A dem ci point B. très bien a réussir ci maanaam ci dignement ak honnêtement. man foofu la loolu fan laa doon moom tax ngeen indi ma. ci loolu mais pas yow ñaa infime la Bercy wala ñaa da nga war a dem Bercy ah. wala ñaa polémique lan mooy polémique. waaw léegi dégg defal naa ko ci loolu. la vie bu ma xamoon loo ma tax ngeen woo ma fi du ma ñëw. non léegi garaaw. barki alxuraanu karim laa def nii bu ma xamoon loolu. waaw déglu ma yow dañoo ah. njëkk a sa liggéey déglu woon. non nañ ci sinab bi non tooguñu fi une heure trente wala une heure trente dañuy leeral parce que ñëpp ñu seetaan dëgg la tooguñu fi une heure trente wala pour wax la ci pad ci ci ci snap pour wax la ci liggéey dugg nañ ci seen liggéey dugg nañ ci snap dañuy dugg ci li waral snap bi parce que snap bi snap boo nag liggéey de da ngay snap ay ay ay ay show ci show yooyu nag dañ ciy am parfois ay difficulté mais show yooyu noonu moom may view yi ma am tey moo tax follower yi di ma siiw waaw léegi bu ci boo ci amee karang karang duñ ci wax ban karang karang laa jëm yow yaa gis karang karang mais xam nga xam nga réew mi buñ la waxtaanewul réew mi buñ la waxtaanewul sa liggéey du avancé du avancé te yow tey yàlla dimbali la na nga dem ba ñuy wax ba nga bokk ci ñi ñuy waxtaanee. après bés yi. mën nañu ni coow li yaa ko yoroon. non te Youssou Ndour xaaral rek xaaral yow coow de. ma terminé mooy nga bu coow daa yaatu Youssou Ndour xajul kenn bañ koy boot. waaw ma déglu ma terminé. Youssou Ndour coow moo koy nga bu boppam. waaw déglu ma déglu ma déglu rek. maa ngi lay déglu waaw après bés yi. Youssou def na li muy def. Hmm. adduna bi ñoo ko doon félicité. Afrique ñoo ko doon félicité. ndax ñi mu def Bercy mais li nga xam ne moom moo di polémique yu sew yi amoon loolu mën nañu yaa gàbbu gàddu coowal birsi ah. bi pourquoi xaaral rek ma terminer mm, mm. parce que danga nga am ay concurrent mm. ñoo xamante ni duñ la may jàmm ñaa te lañ koy wax nag de dëgg dëgg foo teg sa tànk waa déglu ma rek foo teg sa tànk ñu teg fa sa tànk aw ma concurrent waa déglu ma ma terminer waa déglu ma ma ma ci bu la neexee après nga yeggale waa déglu ma bu la neexee après yow nga wax lu la neex ñu tëj parenthèse boobu parce que loolu du du débat en fait dafa am loolu liggéey ci Euh, réseaux sociaux. muy bokk ci plus particulièrement li nga xam ne moom moo di Snapchat. nga dem ba am ay concurrents yu ñëw. Mm-hmm. tey nga dem ba bokk ñu bëri ñoo xamante ni li ngay def loolu la ñuy def. Mm-hmm. boucher li ngay def loolu lay def. Mm-hmm. lu gaa Sankara Mbaye Sankara mbay li ngay def moom lay def. keneen ak keneen ak keneen ak keneen xam nga samay nawle lañ waaw léegi say xarit nawle lañ sanab bi waaw déglu ma métier bi dama ko fàtte bari nawle léegi da nga ko fàtte sécuriser dama ko fàtte sécuriser dama cee bari <laughs> léegi Sénégal ku jóg ni influenceur nga damay sax tiit man la mooy moo influenceur man laa bëgg xam man influenceur mooy mais Sénégal dañoo yombal influenceur nag ay bañ ngay publicité ay savo influenceur la yow ay sa voyage bi gën a sori Gambie ngay dem fii ni ngay laal doo laal avion ne influenceur la mais dañu arrêté <laughs> Nations Unies laa dem man Nations Unies organisation yi gën a rëy CEDEAO CEDEAO laa laal Abuja coow bari waa seen pig si jóg président bi mujj na génn xarit général bi journaliste yi dañuy ñëw nekk naan waa seen pig si ñëw <laughs> mais ma ruuba <laughs> ma ruuba ci CEDEAO ma nekk les Nations mi ngi leen di sànni pig ma kenn pig ah. man naan du ma ma écrivain man je suis Snapchat laa yor aw ma carte presse aw ma accréditation jaaruma sesti ñetti phrase yi laa waree àdduna aka forum parlementaire de musique da ngeen may nangul loolu très bien on avance léegi on avance lan ngay wax Mbaye Guèye du ma ko wax dara suma papa la suma frère du ma ko wax dara dëgg yàlla jàmm rek lañ séq nag moom ay jabaram ak ay soxnaam ak doomam suma la. après bi gis nga réseaux sociaux yi ni ñu indi polémique ci seen koy polémique li mu wax aayul. ku ñu woo. ko woo man ni su ma taxawoon posé question loolu la may wax rek ñaakaar dañ laa woo loolu aayul de. Hmm. loolu nga jàpp yaa ko rafetal noonu. mais boo ko rafetal noo koy da nga koy ñaawal. mais li am. mais li am xaw ma li am yow yaa gis li am man gisuma li am man. non ñaaw tax nga gis. gisuma dama gumba def lu kumbalu muuma arbitre gumba gisuma daara man lii laay gis man sama bopp